et bien sûr, mais c'est là. C'est-à-dire que li xew Sénégal dafa jéggi dayo quoi xam nga là la dafa am lu xew avec Macky Sall si c'est pas le mandat c'est la date avec Macky Sall si c'est pas le mandat c'est la date mhm. dictateur yëpp nag yoo gis si àdduna bi yëpp ñaari problème yi nañ am ci démocratie muy seen mandat maanaam temps bi ñuy toog ci nguur gi ab bés bi ñuy jël nguur gi di jox ci nous changer. dictateur on parle de la royauté bàyyi day tok ba Dom jox Dom dom tok ba amul élection amul date aujourd'hui le masque le masque a tombé c'est-à-dire que masque sale, c'est un dictateur parce que le propre d'un dictateur tu s'entends jamais sur le mandat tu on s'entend jamais avec le peuple avec la date mais ça pose vraiment un problème c'est pas na ko conférence bi conférence waxoon ne entretien bi bi presse d'ailleurs là-bas je m'arrête un tout petit peu d'ailleurs même cette presse locale là vraiment pose un problème parce que Macky Sall mënul a 12 ans ci nguur en position défavorable vos presse locale bi nga il les a toujours piétinés ñu dañuy waxtaan ak entretien j'aurais dû que les corporations de la presse là syndicat yu dem parce que la presse aussi fait partie éléments yi nga ni dañuy défendre la république les fondements de notre république toog ak Macky Sall ak fi presse bi ça pose un problème le format aussi on avait vu une presse familiale xam mais nous qu'est-ce que nous avons à faire des humeurs et des pulsions de Macky s'il finit son mandat s'il va à Dembe, Dembe, Noulmadi Founébé à Thierry chez moi à Djolof s'il va à Kisangani en Congo mais lan la si ngañi sénégalais yi nekk wax ma si la lan la si Sénégal seen problème là moi si la seule question bi nga xam ne moom la ñu xaar ci Macky Sall eh monsieur le président yow dañ la jox lenge yi ñoo la jox kër gu gën a rafet ci Sénégal jox la nak ay sañ-sañ xam nga lay laaj suñu date kan nga koy japp loolu rek moo nekkoon question bi mais Seybani wax na ko Macky Sall il est dans une logique de sabotage boo xoolee sax ni mu toogee woon ni muy répondre question yi finalement da ngay toog ba qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu mais conseil constitutionnel li mu ko wax yomb mais lii bettul kenn man bin bin naa ko avant muy dem entretien il va créer une crise dans une crise encore mais jàppal ñu dak mais c'est très simple à partir de 2 avril mais pour man li wara li yep moy nekk Macky Sall li doon wax tay moko rattraper est-ce que le 2 bu ñu demee ci ay élections admettons hypothèse la ñuy wax parce que kenn xamul ki gagné waaw bu bu Bassirou Diomaye fay gagné ban gàcce lay am pour de pour pour ñu jokkalante lengay peut-être loolu lay xalaat c'est pourquoi aujourd'hui dialogue bi nga xamee ni ni woote na ko woote na ko dialogue bi yëpp ndëgg sërëx la bépp sénégalais bu crédible munoo toog 12 ans 12 ans yi ñu nga toog yëpp dialogue boo fi woote amna na lu ko undu ci ginnaaw bu njëkk bi Karim Wade la woon beneen bi Khalifa Sall ñu koy doon waa bii dialogue pour lan la léegi dañuy toog ñu ne ko léegi le deux élection yi mënuñu ko te moom il a été démenti il a été démenti même par son ministre de l' intérieur organisateur des élections ali Ngouille Ndiaye taxaw na mu wax ne élection yi moom nekkoon na ministre de l' intérieur mun nañ ko organiser avant le 2 avril mais pourquoi mënuñu ko def mais jàpp date yomb na mais c'est est-ce que mon, euh, dialogue bi aussi euh, pour pour pour soigner sa sortie par exemple pour euh, et surtout parce que vous xoolee dafa mel ni créer un lien entre dialogue et libération de son non non non c'est là la sortie de mm-hmm. Macky Sall n'est plus soignable autrement dit Macky Sall tey fi mu Sénégal ak li def sénégalais comment il a éconné l'image de notre république désarticulé nos institutions hein, mettre à terre nos institutions mais ça moun tu fi wax ben sortie bo xamné ne sortie honorable lenn moo fi mëna am moy na ko mu sukkandiku si charte ndeyu rew mi muy constitution bi li constitution bi wax mu def ko dialogue bi euh, Ousmane Sonko a été clair Ñom ñoma fi duwal nañuy fexé nañ ma fi génné. Néna na demul dialogue tay, demul dialogue ëlëk. les canaux officiels parti bi wax nañ position Ousmane Sonko dialogue bi suba ñu fay dem ñan la c'est-à-dire que il est en train même d'insulter encore le conseil constitutionnel mais conseil constitutionnel nan la mën a ci décision bi mujjé jël ni candidat yi ma retenir ñom ñoo wara dem ci ay élections yow nga bëgg dem tok waxtaan ak ño ni c'est le même conseil constitutionnel qui les a recusés, pour x raisons mais il faut qu'on l'on respecte les règles du jeu mais bonne crédibilité le conseil constitutionnel wara a am qui ne ay ñoom job de Decroix ay ñoom Bougane gay Dany ayant Abdelrahman Abdourahmane Diouf je donne des exemples même vous dee des demuñu les candidats qui se disent se dit c'est des candidats expoliés, mais qui spolient la conscience collective des Sénégalais mais respectons la constitution mais nous ñu def ni Mimi Touré conseil constitutionnel mais respecte la décision du conseil constitutionnel mais en même temps aussi respectez les conseil constitutionnel mais nous avons fait fay ils sont en déphasage je suis désolé de le dire n'est pas méchant avec la sociologie sénégalaise actuellement contexte et ñu